la Uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa man biha daxala fi amrin fala yakunu xaa'iban wala mustafila yaa rabbana habli bi akil kawsari yumnal xayaati wa ujoori kasiri ak bokki taalibe yi seen mbokkum taalibe moomu du mu Baay Faal noo fii tey ci kër sëñ Amdi Xadi Faal moom Cheikh Sëriñ Asan Faal moom maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridiina fii ci njaareem ci kër maam Cheikh Ibra gi mu fi liggéeyan ci 1916 tuddi ko Madinatu Munawara na nga xam ne nag maam si Ibrahima Fall bi mu jógee Thiès 1916 fekk si ko baax ki xaar yi mu rasuul dafay liggéey ñaari kër mooy màkkatal mu karam ak Madinatu Munawara màkkatal mu karam mooy fii ci saw Madinatu Munawara ma jàkkaarloog moom fii nu taxaw ne di Madinatu Munawara fi la ko baax ki wooye woon nag ci Madinatu Munawara gi ndax bi maam Cheikh Fall suñ cee ñaari kër yooyee fi mu jëkk dëkk muy war a gii ba mu ab ab diir mu doog a sañca màkkatal mu karam fa la wàcc bi liggéey bi mu nekkee fii nag 1916 fekk si ko baax ki fi ko Serigne Touba wooye mu ànd ak mbooloo wuyu ji ko kër gu mag mbooloo moomee nga mu àndaloon sëñ Motloo Cheikh Seef ca la bokkan sëñ Masamba Ndiaye Wàqi ca la bokkan sëñ Yaaram Mbay cala la bokkan sëñ Njaay Roqaya ca la bokkan ba mu ñëwee ku baax ki Xaadimu Rasuul ne ko Ibra Faal ëllëg damay am aw gan bëgg nga toggal leen ay reer waxu ko ak gan waxu ko ab reer ay gan ko wax ni ko dama bëgg nga toggal ay reer daal di koy ñaanal bi ñu wëlbatikoo ba diggante kër Seex ak Madinatu Munawara gii nu nekk tey saamam seera Faal ni gisub taxaw daal ni gees wax sëñ ma Njaay sëñ ma ne ko Massamba Ndiaye mu ne ko Faal mu ne ko lu ko baax wax sëñ Massamba Ndiaye ne ko laaj ko yaaram mu ne ko yaaram mu ne ko Faal mu ne ko lu ko baax wax mu ne ko ku baax dafa wax ni ëllëg day am aw gan bëggal nga toggal leen ay reer mu ne ko mu ne ko yaaram mu ne ko Faal mu ko bindal ma tànk sëñ yaaram mbay bind tànk bind taa ak keef mu ne ko ad adat ko mooy lim ko ba mu ko limee ne ko taa tombe gi ñeenti téeméer la keef gi di ñaar fukk mu ne ko muy muy ñeent ñaar fukk mu ne ko waaw mu ne ko wàññi ko te bindal ma tànk sa sa ñaaram mbay daa di far taa tombi gi daa taa tànk wolof di wolof di ko taate daroo ak keef mu ne ko lim ko mu ne ko taa tànk gi juróom-ñeent la keef gi di ñaar fukk mu ne ko muy ñaar fukk juróom-ñeent mu ne ko waaw mu ne ko yaaram mu ne ko faal mu ne ko tey la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent su soobaan mooy aw baraxlu suba la Ramadan di teru Cheikh Rafal nag ba nu wax loolu digg ba cëg la moo tax diggante Serigne ak Cheikh Rafal weer yi da leen di tàggu naa maay weer sàngam bis yi da di tàggu naa maay bis sàngam moo tax ci digg bëccëg mu ni ko suba la Ramadan di teru ne ko gan ñooñu sëñ Bàmbay wax bisi weeru koor yee bisi weeru koor yee ay ndogu la may toggaloo waaye yaaram mu ne ko faal mu ne ko ndogu yooyu ma sëñ Bàmbay toggaloo nag ku ma ci jox lu toll ni ab tànk dana la ci defal loo xam ni doo yàqu addina doo yàqu àllaaxira ab tànk nag muy dërëm boo xam ni xaaj nañ ko fukki yoon ndax fukki tànk fukki tànk mu di dërëm mu ne ku ma jox ku ma ci jox lu toll ni dërëm bu ñu xaaj fukki yoon mu def tànk dana la ci defal loo xam ne doo yàqu addina doo yàqu àllaaxira saamam sera faal nag jël ndogu yooyu yii di ko togg di ko di fukki ndab ak ñaar ak suppeeru ginaar su ko toggee ba noppi sëñ Ablaye xaar doomi Lat Joor jóoba woon moo daan jiitu doon jëwriñ ji yor saako bi def mburu mi muy saako ba weex mbooloo mi yëkkati baatub laa ilaaha illallaah wuti ko barke Xaadimu Rasuul loolu mu di ko def ba bi ba maam Sera Fall dem doomam ju baax ja sëñ Taa Fall gi di ko def ba mu demee Cheikh Moo Talla Fall di ko def Serigne Assane Fall addi jëm daan jox Cheikh Ibra daan ko jox sëñ taa faal mu di ko teg moo taala faal di ko togg ba ñu demee nag ba sëñ moo taala faal dem sëriñ Fallu Mbàkke woo sëriñ Asan Faal ni ko sa wëyjur wa nag la mu daan def yow jox naa la ndigal tey nga di ko togg ajjuma ba ajjuma di ma ko indil foo ko mën a togge nag di ma ko indil Tuubaa sëriñ Asan Faal tàmbalee liggéey boobee kees di ko togg di ko yët sëriñ Fallu fonk gu mu fonk ndigal Fallu loole nag moo tax Serigne Assane di ko togg ñamu Touba wii tàmbale ko ceeb tàmbale ko ay cere tàmbale ko lu dul ñamu Touba wii ko si Amdi Khalifa di togg rek mooy ndawal kese di ko yéen jobatu sëñ Touba gi mu sëñ Fallu ba sëñ Fallu demee Serigne Assane Fall di ko togg di ko jox sëñ Abdou Lahat ba 1974 bi ko Serigne Assane Fall mu jee togg ca mu def ko ñaar fukki ndab ak ñeent ñaar fukki ndab yooyu ak ñeent ba mu ko toggee ba taaj ko toll ci ñu war koo muur Baye Cheikh Ndiaye daa baay wax na Sëriñ Assane Fall ni ko Fall si Cheikh Fall sa baay bu baax ba di fukki ndab la daa togg ak ñaar ak super ginaar yow nag def nga ko ñaar fukki ndab ak ñeent te lépp ndawal la kon yokk nga la sa baay doon def fi mu koy waxee sëñ Sam Mbàkke mu ndulo daal di ñëw yor benn bu ñuul jóge Touba Belel sëñ Abdoulaye ne ko Sam mu ne ko mu ne ko Mbàkke mu ni ko rek yónnin bii ma la yónni na nga balaa njabootu Serap Fall googu tasaaroo teetub Serigne Assane Fall ba nekk kaw sara na nga fa fekk daal di ko jox mbubb mu wert muy mbubbam bàyyi laat mu wert ñëw bàyyi laat bii ñu ko ñaw sëñ ab laat noonu lañ ko ñëwee muy mu wert sa bët bi laa ca teg mu ne ko boo demee mbu mii teg ko ca loxo Serigne Assane Fall nee ko na ko yëkkati ba ñëpp seen ko ndax mbu mi man Abdoul Ahad sol naa ko fukki fan ak juróom ci weeru koor wi di jaamu sa borom ku ci sa bët tege sa yaram araam la sawara ko jox saako tàndarma ne ko tàndarma ji na yaatu ndax ku ci mus sa yaram araam la sawara sëñ saam indi mbu moo mee sëñ asan teg ko ci loxo saa baay mi ma jur jibi sek saa baay yëkkati mbu ñeenti xeble yëpp mu di ko fa wane ni sëriñ abdulaat ne na mbu mii sol na ko fukki fan ak juróom ci weeru koor wii da jaamu boroomam na ko ñëpp xool na ko ci sama tege sa weer araamal na sawara loolu 1974 la te déwén sa di 1975 sëñ Assane Fall doon xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina le 28 octobre daa daal di wéyale nag ñaar fukki ndab na ma bàyyee ca kees ak ñeent di ko togg bis bu nekk di ko yët sëñ Abdoulaye Mbacke ba ni sëñ Assane Fall demee nag sëñ Amdi Khady Fall nii liggéey boobee mu jël ko. sëriñ Abdoulaat digal ko ni ko loo xamante ni sa waajur wa mu ko daan def boole naa la ak sa bay Abdou Sakkoor bu la fa kenn gën a feeñ ndax foo xam ne ku fa xes feeñ kenn doot la mën a nëbb bu la fa kenn gën a feeñ na ko def mu sam sëñ Touba na nga ko def mu sam Cheikh Ibra na ko def mu sam Sëriñ Asan sëñ am na xët yi mii di jël lu mboolem lu mu am di ko teg ci loxo si Abdou Sakkoor bi sëñ Abdou Sakkoor demee ne sëñ Fallu defan ak Serigne Assane Fall jox ko ndigal sëñ Amdou Khady Fall njabootu Serigne Fall gépp ci ndigal dong la ñuy wéy duñu dox a coobare. sëñ Abdou Lahad yónnee fi ndaw ne ko la sa wajur def nag léegi dee ko def par ajjuma te dima ko indil sëñ Amdou Khady nag tàmbali liggéey boobee ci jamono sëñ Abdou Lahad sëñ Amdou Khady nag day wax ni lu waay yokkul yaa ko wàññi mu yokk ko yokk bu wér booba fajaruk ajjuma lañ ko daan tàmbali. waaye dem na ba fi mu nekk nii mënuñu koo tàmbali ci benn bis sottal ko ci benn bis ko takkusaanu alxemes la ñu tàmbali liggéey bi ñuy defar nag yi defar nag yi ñuy defar ginaar yi defar ginaar yi ñuy defar gàtt yi defar gàtt yi na fanaan ci basamaan set ñu liggéey ko ba mu mel nii sëñ am na xadi faal nag day wax nii liggéey bii kat moom bu ko nit ñi giseen moom gisu ko ndax li mu yéenee liggéey sëriñ bi su fekkente ni téeméer la liggéey gul asaka ji te sëñ Amdi Xadi day wax ni kuy liggéey ku ne na nga am pas-pas bu liggéey sëriñ bi ndax nga mën cee am ngërëmu sëriñ bi ndax yàlla du lu ñu jënd ci alal pas-pas bi na la yàllay fay ak yitte ji ndax lu waay am yàlla la ko jox comme loo delloo ci yàlla la la yàlla jox nga jël delloo ko ci yàlla kon lii sëñ Amdi Xadi di def nit ñii ñoo ko gis waaye sëñ Amdi Xadi Fall moom gisu ko mi ngi soññ ñëpp nag ba fii mu ne nag mu di ko liggéey di ko teg ci loxo Cheikh Mamadou Lamine mu sëriñ fallu ñuy ñaan Cheikh Mamadou Lamine yàgg fi sëñ Amdi Kadi Faal yàgg koo liggéey yàgg koo yët mu yàgg na koo nangul sëñ Amdi Kadi Faal mi yàgg fi sëñ sëñ Cheikh Demba Faal mi Cheikh Ibrahima yàgg fi lool am na itam lu ñu ci jàllale léegi li ma sëñ bi woo jox ma ndigal ne ma mu tafaa ma ne ko faal mu ni ma murit yëpp rawatina Baay Faal yi war nañ war nañoo xam ni doomi maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina ju jigéen mu ngi fii ci kaw suuf mi ngi fii ci njaarim këram a ngi nii sama diggante ak moom matul ñaari téeméeri meetar sëñ am na xarit wax ni muy soonu ummi faalum Cheikh Ibra na ko ñëpp jox addiya ñu laaj ko fi addiya léegi ma wax ni bu loolu jàllee tam digle ko rek ngir jox ko addiya dafa bëgg bàyyi fal yëpp bàyyi ci xel di ñëw njaareem di ko siyaare di ko nemmiku te xam ne moo fi Cheikh ndax doomi Cheikh la Fall nun ñu nun ñu fi nekk ñépp ay sunu sunu bàjjana ay doo ay doomam lanu kon nag mi ngi joxe ndigal fu ab Baay Fall ne rawatina ñi aju ci kaw sara foofu waaye nekk deel ñëw njaaréem di nemmi ko doomi maam Cheikh Ibrahima Fall ji fi nekk di soxna Oumy Fall ndax lu waaye teg ci loxoom ci loxo Cheikh Fall nga ko teg ku ko siyaar Cheikh Fall nga siyaar loolu bokk na ci li ma doon leer leeral mi ngi mi ngi soññe nag sëñ bi ne daal moom liggéey bii lu mu am dina ko ci def lu waay jox mu defal ko ko ci ku sant faal ak kuy woyoo faal sopp ak wëllëre ak ko ay ci moom la ci yemale la Lincoln ci biir nag fa la kilifa ya tooge ca wetu volontaire ba biir kër ga la nga fa la nga séen loolu ay cin la muy waañ wi nga ni fi ñuy toggee ndogu yi jëm Touba ñu ko jox sang bu tedd bi ndax sëñ Amdi Xadi Fall day wax ni kuy defal ki gën danga koy defal li gën kon nag bu yëpp Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacké da koy defal li gën moo tax ci biir kër ga lañ koy liggéeye sëñ Amdi Xadim nag doon jàmbaar joo xamante ni bëggul kennam tumuranke tey liggéey bi da ko sellal moo tax nun ci suñu jëmme bopp nun dongo yi dañuy wutal ak ndawal gu doy jox la li ci war a ànd lépp indi ko fii muy waañ wii ci loo fii sëñ bee ko wutal beral beral nu ko nu nu togg ko añee ko nun baay faal yi ba nga xamante ni menn xelum baay faal du dem ci li ñuy liggéey sëriñ Tuubaa sëñ Amdi Khady Fall noonu la ko sellale ndax nit su fekkente ni da ko jox ak ndawal mu de ko togg te mu ànd ko xiif amaana am xelam ma na caa dem waaye xoolal ci nii génn fii fi mu nekk nii lu mu néew ni mat na juróom-ñaar fukki mbana te ndawal rek la ak macaroni ak li war a àndal sëñ Amdi Khady Fall defal nu ko ngir nu man ko añe ngir sunu xel mën a génn ci li ñuy liggéey sëñ Tuubaa ba nga xam ci am génn bëgg guddul sàkku ngërëmu sëriñ bi kon nag loolu suñu am na kat war nañ koo ñaanal la am na xadi faal ci négociation bi xadi faal. ak ñëpp nag. ñu ak rakkam ñëpp. ñu ngi sant ñëpp. ñu ngi sant ñëpp. tey gërëm ñëpp. tey gërëm ñëpp. ay rakkam. ak rakkam. ñëpp ñëpp ñëpp. bàyyiwuñu kenn. bàyyiwuñu kenn. liggéey ngir yàlla la. liggéey ngir yàlla la. mu tàmbali ko. mu tàmbali ko. parce que yéen a àggale. dafa ko yéen a àggale. kon liggéey bii. kon liggéey bii. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. mi ngi sant ñëpp. mi ngi sant ñëpp. tey gërëm ñëpp. tey gërëm ñëpp. gërëm taalibe yëpp di gërëm taalibe yëpp. góor ak jigéen góor ak jigéen. ndax liggéey bi ndax liggéey bi. góor góor ak jigéen. ak jigéen mag mag ak ndaw ak ndaw. ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk. nañ takk nañ takk bu baax. baax a baax ba baax a baax. ba àggale liggéey bi ba àggale liggéey bi. nee na nee na nag. kër woo gis kër woo gis. ak waa ci gën a ak waa ci gën a métti. àjjuma ji mujj àjjuma ji mujj. ñun ñëpp ñun ñëpp. nañ taxaw temm nañ taxaw temm. neem li mu ne xamal nag bàq la bu tooy xit lu ci waay ji dina sax nanu jaayante ak Cheikh Ibra ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul liggéey bii ba weeru teroo ñu war a woor koom jël woor nga ku amul woor nga kon nu ñu liggéeyal yàlla nan taxaw ku am nan wuti te jaayante ko te attan ko cee def ne moom mi kat wax na ni lii ñor yàlla ñu ko dénk waaye li gën a wóor mooy ngërëmul yàlla moom ngay sàkku moom ngay am doo tàggoog moom tey doo tàggoog mu ëllëg waaye li bi lu moom danga ko fi bàyyi kon nag li yitteem nay sunu yitte nan takku taxaw tem ba liggéey bii yokku ndax yokku na ba noppi waaye yoon sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam la am te wan nañu ko kat ajjuma ju jëkk juróom fukki ndam ak juróom ju ñaareel juróom benn fukki ndam ak juróom ñett juróom ñett tey jii juróom ñetti fukk ak ñett kanam rek kon nag nan taxaw tem te liggéey te jaayante waaye Baay Faal la mu yor moomu ko jëf bu jotee danga ci jaayante mu mën a yokk waaye koo dégg mu ni sëñ bi diggee mëneesu ko bëgg moom li mu bëgg ñu man ko day nax boppam te liggéey sëriñ bi bu ñu nee ayca bu la kenn jëkk bërigo la bu ñuy bërën soo jàppee mu dem soo jàppul mu dem kon nañ ci ànd mi ngi nii yetti ajjuma jàll na jii ci des nañ taxaw tem barmol kat ne barmol kat bi nam bi barmol du bokk ku dul nam du bokk ku dul nam ku jëfi ndigal ku jëfi doo xiibon ku bàyyi ndigal nag di xiibon jërë jëf ne mi ngërëm ñëpp tey sant ñëpp nan fi dajawaat àjjuma ak jàmm insha Allah amin faal amin faal amin faal amin faal la ilaha illallah amin faal amin amin la ilaha ilaha sëñ bi nee na weesu ña weesu woon di kilifa yu baax na yéene na ko sëñ ëpp xat yi booy def yéene na koy ñaan te ngeen fekke ko ñun ñëpp te ànd ak moom te ngeen ñaanal ko moom itam nag mu yàgg loolu tamit am nañu ci yaakaar loolu bu ñu ci yaakaar yàlla bu ñu la la la